jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte ñu koy defee saa su ne mbokk yi dañoo nekk ci li nga xamante ni mooy bés ñëw seet si ndaanaan boo xamante ni bokk na ci làmb muy journée Mouniang production nekkoon le 2 janvier ah. le premier janvier 2020 at bu bees fële ci arène national mu doxoon ci ñaari mbër Mori Cargo ak Cheikh Super Jamono. mbokk yi ñu dem ba ci bis bi ci làmb ji kii di Cheikh Super Jamono am benn blessure boo xamante ni daf ko dabale ci làmb ji ba waral làmb ji amut dégg ngeen lépp lu nga xamante ni Cheikh Super Jamono waxoon na ko tey nag ñu seet kii nga xamante ni moom la arbitre jox ndam li keroog ci bisu làmb ja muy Mori Cargo Mori ñoo ngi lay nuyu. oui ñoo ngi lay fay Cheikh ñoo ngi lay fay bu baax a baax a baax di la nuyu di nuyu ñi nga àndal di nuyu sa waa sit muy waa wasaare. tamit di nuyu fii ñu nekk ñëpp mooy ñu ñu toogal ñoo ngi nuyu ñëpp di wax na tey dañoo ñëw si suñu ngénte suñu mag suñu grand suñu nijaay suñu lépp muy magum mbay nekk coach booy gànjul moom tamit tey nga fekk fi beneen écurie boo xam ne ñoo ngi fi coach moo nekk nii muy magum mais ñu nag moom avant làmb la woon li ñu seq maanaam seq nañ loo xam ne du sax wàllu làmb xam nga li ma la wax. mais nag après làmb daf ñu dab ñu nekk si mu bëgg làmb bëgg sport ñun tamit ñu bëgg ko nekk si mu di ñu conseillé di ñu jàppale tey mu xewle bés ñu ñëpp ñu daje fi ñëw fi teewal ko fii moo tax nga fekk ñu fii nii tey daal tamit ñoo ngi ñaanal tu tànk bi nga xam ne moo fi ñëw suñu borom def ko mu nekk mag magum lislaam mag bu am ñam tamit dund ba teral ay waajuram ñoo ngi ko koy ñaanal di nuyu ñu fi teew yëpp champion yi nga xam ne ñoo fi nekk mbëri fi am combat ñoo ngi leen di ñaanal suñu borom may leen ndam muy caatu piwol bi Thier ak étoile jëlëf bu war a bëre si combat agogo bi Ousmane Ngom moom tamit xam nga ñoo leen di ñaanal ndam ñoom mbër yëpp yeneen mbër yi nga xam ne itam ñoo ngi amuñu combat ñoo leen di ñaanal ñu am combat ba am si victoire di nuyu suñu grand bi toog nii muy Modou Diop di suñu mag di ñu jàppale moom tamit si fànn bu nekk di nuyu itam xam nga suñu grand koo xam ne moom moo yor suñu lépp mën naa ne di ñu taxaw di ñu jàppale bu baax baax a baax muy laay jaw tamit moo ngi nii toog xam nga di nuyu sama gaa yëpp sama waa écurie maa leen di nuyu ñoom tamit di leen ñaanal seen combat yi suñu borom may leen si ndam muy agogo goo war a bëre suba deux gars bi bëre la douze mook caat mi ñoo bokk journée ñoo leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla may leen ndam di nuyu grand fi toog yëpp ñoom grand Ndoye suñu papa nijaay Saliou moom tamit xam nga ak gaa yi fi nekk yëpp grand Idi ñoom jàpp gaa yi nuyu nañ leen bu baax a baax a baax bëggee leen di leen nuyu tamit nag di kontaan baax a baax a baax émission bi. noo waajee sa bis bi nga xamante ne moom nga waroon bëre Cheikh Super Jamono ak avance bi kañ nga ko jël ci ñaata weer nga jël avance boobu. waaw mën naa ne combat bi avant saison bi di tëj la taxawoon combat bi avant saison bi di tëj la taxawoon parce que laay may nii moom moo dox lépp xam nga li ma la wax lépp moom moo xóot si loxoom la jaar daal parce que ñëw na rek na ma man làmb bi taxaw na am nga komba yow seex Cheikh Super Jamono mais amagul date mais dégg naa ko mu ne. yëgalee na datu combat ak bi bëri deux mois la ñun presque xam naa ne un mois dix jours lañ ko yëg si xam datu combat lépp lépp mois dix la mais yàlla def na fekk na pare woon nañ bu yàgg nag li ñu waroon def yëpp ñoo ngi ko doon def entraîné nañ li ñu waroon entraîné lépp pare nañ ni ñu waroon pare ànd ak suñuy mbokk ñëw li si desoon daal mooy sëgg bëre yàlla dogal woon nag mais yàlla jox nañu fa victoire ñu génnee ko fa tamit sant yàlla bu baax a baax. ñëw ci sëgg bëre bi waaye bis bi nga xamante ne moom ngeen waroon bëre yéen ñaar. xamoon nga ko bi koy jël xamoon nga Cheikh Super Diamant. xamoon naa Cheikh. xam naa ko xam naa ko si làmb xam naa ko mbër la moo ngi si làmb ji di bëri ñu nekk si ñëpp dañuy xamante xam boobu rek nga ko mën a xam mais mënoo ko xam-xam boo xam ne bu ëpp boobu la xam nañ ko daal xamu làmb waa xamu mbër. daan nga seetaan ay kombaam. waaw seetaan naa ay kombaam seetaan naa ay kombaam yu bëri yu mu bëri seetaan naa ko waaw. lu xewoon ba nga ñemee jël avance Cheikh Super Diamant ak fi mu jaar ci làmb. ak ndaanaan ñi mu daan lu xew ba nga ñemee koo jël. ñeme jël Cheikh man maa man la ñu war a laaj ndax maa nga ñemee jël wala moom la ñu war a laaj loolu man koy la ñu waroon laaj lu tax yow nga ñeme jël Mori Cargo tamit man Cheikh ñi ma bëreel bëriwul ak ñoom ñoom mbëri ma daan daanu leen xam nga li ma la wax kon moom mën naa ne dafa bokkoon sama yoon la parce que daa am moom tam ñun si luñ jógee bu woon retefee loolu tamit ñu jël ko dafa nekk suñu yoon rek dañ ko doon jël pour jàll dem si leneen waa mais nekk combat yaak moo nekkoon sa ñaata combat. moo nekk sama deuxième combat. deuxième combat ñaata victoire nga ci am ñaata def. deux défaites laa amagum si làmb. kan ak kan moo la défaite. joomaay bu Samba moo daan ak Ndiaga Thiam bu Pape Diop Boston. ñaari defet yooyu laa amagum maa ngi ñaan yàlla nag xam nga mu yem fi défaite yooyu défaite moom. waaw mu yem fi. ñaata victoire ci am yan ndaanaan fi bëreel bari nañ. bëri na king bu bàyyi si xel. daan ko booy Malika Calcio bu Kër Massar mbooloo xam nga ak euh, Malaw Seras numéro 2 ak ay Murit Fay bëri na daal ñoo xam ne boo limee da ngay juum mënu ma lim ñëpp ay Pape Xaaf bëri na ak seeg mbëru bëree bëree bëri Pikine dugg naa fa duggaat fa. waaw bëri naa yu bëri. war a bëreeg Cheikh Super Jamono. nga dem ba ci bis bi yëg ni Cheikh Jamono gaañu na. nga ni dafa ñëw gis état de forme bi nga am moo waral mu gaañ boppam est-ce que loolu loolu la mën noonu la demee. waaw parce que mën naa ne lu si bari ay rumeur la parce que waxuma ay sama état de forme moo tax bëresiwul li ko dal noonu yàlla mënoon na dogal mu dal ma xam nga li ma la wax. làmb la man dama ñëwoon pour bëresi man bëree moo ma andi woon stade. te moom si biir stade bi gis naa ko ñu daje si géew bi mais jàpp ma ne moom mii dara jot na ko xam nga li ma la wax man ba tey bëre laa doon gis jékki-jékki naa nag ñu ñëw am luñ ma wax na moom mbër bi ngay bëreel dafa blessé xaw ma la nag lan day ñibbi mais taxul woon sax ma gëm ko parce que biñ ma waxee loolu itam gis naa ko muy def ay kii am ay échauffement am xam nga ak dem tuuse ji yëpp moo taxit man gëw ma woon loolu ñuy wax dama jàpp na man dama war a bëre damay bëre bëre moo ma fi andi daal damay bëre ba bi ma laajtee nag ñu ne ma ñibbi na laa xam ne kon fii làmb dootu fi amati comme kii ñibbi na dootuñu bëreeti ci laa soog a xam ne du mu bëre mais bëre moo ma andi woon stade seex nag moom li ko dal xam nga man dama xay masawu parce que loolu mënoon na ma daal ci làmb la mais nag ñun mbër yëpp laay waxal rek ku ñun ñëpp ku si nekk war nañ mën a bàyyi xel tamit ku siy génn sa kër bu supporter yi ni ñu taxawee noonu ak public bi itam xam nga nga bàyyi xel ne rek affaire yi si géew bi la nekkul sa buntu kër parce que sa buntu kër benn mbër du bëre si buntu këram kenn du bëre ak say supporter itam supporter yi dañ lay gunge ji pour nga dem bëre ji mais bëre bi si biir géew bi lay xewee kon looy mënti def rek ak al boo mënti am war nga bàyyi ba dugg si biir géew bi. Mhm. yow booy génn sa kër di nga yor ay bégu naaw naaw ak ay béjjën ak yu deme noonu waaw dinaa yor bëjjën mais du ma yor begu naaw naaw mais dinaa yor béjjén béjjén comme béjjén yi mbëri di yor yëpp dinaa ko yor dem ay tegtal lay doon nag yoo xam ne xam nga si làmb la bokk dañ la koy jox mais béjjén yi nekkul béjjén boo xam ne pour arme nekkul béjjénu xeex mais béjjén la boo xam ne làmb moo ko tax a jóg danañ ko yor dem si làmb ji mais itam du tax ñu def si yoo xam ne waruñ ko si def waaw su ñuy génn suñu kër itam dañuy génn ak suñu xel dañuy ànd ak suñu xel ànd ak suñuy garant ñu teg si yoon tamit. waaw ñu def ñu tey def li ñu war a def dem làmb ja bu duggee si biir géew bi nag waaw foofu moom lu waay lu waay mën xam nga nga def ko foofu noonu. Mhm. ban erreur nga gis ni moom la Cheikh Super Jamono def ba gaañ boppam boo doon boo ko doon conseillé lan nga koy wax ban erreur la def. non man du ma ko conseillé si dara parce que am na staff am na ñu mu nekkal. xañ na ñoom ñooy wax ak moom parce que lii mën na am lu mu sooxeel si làmbam mën na am itam leneen loo xam ne yàlla daal moo xam ñun ñaana luñ ko gàllankoor ñaanaluñ ko itam safaan ba xam nga li ma la wax ñun suñu sañoon li am noonu neexuñu ñun bëre la ñu bëggoon dañoo bëggoon mu ñëw ñu dugg si biir géew bi ñu bëree ku si nekk nga wane li nga liggéey lan la parce que dégg naa ko mu ne moom xam nga da doon ànd ak Alioune Seye de ñoom di dem dunya quatre heures affaire yooyu ñun tamit liggéey nañ moom nu mu liggéey noonu ñun li ñu liggéey dañ ko gëm ba pare wóolu ko am yaakaar ne itam xam nga bu arbitre sifflé si biir géew bi ñu nag moom kese ak lu mu mënti andi lu mu mënti woon andi jour boobu ñun li ñu andi wóolu nañ ko ba mu leer nañu ni incha allahu suñuy génn si stade bi dañuy génneeg ndam loolu moom leeral nañu naan ñi. Mhm. li mu doon wax com contrat moo leen lié woon ba mu tax mu mu wax la lim la doon mais fi mu toll nii yéen ñaan amatoo leen benn contrat ndax ndam li nga xamante ni moom nga am ci digganteem arbitre bi jox na la ko parce que comme moom dafa ñëw ba ci làmb ji gaañu arbitre bi jox na la ndam loo ci yëg. waaw sant yàlla bu baax ndam du tuuti parce que ba ñuy dem itam ndam lañ doon wut ndam lañ doon ñaan yàlla mu may ñu ko te dañ doon ñaan yàlla mu may ñu ndam lu sedd xañ na ñaan bu nangu moo sonal borom rek comme ñaan ndam bu sedd guy boobu ñu doon ñaan xañ na ay nit itam doon ñu ko ñaanal bu baax si koñ bi fii ñu dëkk ak fépp xañ na loolu la yàlla dogal ñu dem am ndam te bëre xam nga mais ñun bu ñu sañoon dañuy bëre. parce que bëre moo ñu yóbbu woon stade bëre lañ bëggoon def mais noonu la ko yàlla dogalee yàlla lim dogal kenn mënu si dara ñun ay jaam lañ yoo xam ne xam nga ay taaliba lañ ba pare te dañ nangu nañu dogal. métti na ko waa nga préparé làmb ñëw pour bëre mais noonu la ko yàlla dogalee mënuñ si dara kontaan nañ si bu baax si li yàlla def jël nañ suñu victoire ñëpp si àndaat ak suñuy am di jaamu ak suñuy mbokk ñëpp si waat di waajalaat leneen nag. nee na moom bu amoon ak lépp avance sëñ Modou Niang na ko tëgg sa digganteeg moom bu mu ko fay ñaari dërëm moom mu bëree parce que moom dafa mel ni yow la gën a xiif. waaw xañ na loolu moom <laughs> xam nga waxu mbër la rek mais dara ñun daal ñun ñoo suñuy ginnaaw garant ñun ñoo ngi si lañ war a nekk ñoo ngi ne ñoo ngi def li ñu war a def combat boobu bi ñu ko jëlee woon maanaam contrat bi jeex na li gars yi waxoon ak ñoom def nañ ko ñun respecté nañ li waroon def yëpp tardé wuñu signature ñàkkuñoo sol blouson defuñ lépp ñëw nañ si làmb ja pour bëre si noonu loxo yàlla dogalee nag ñu ñoo ngi suñuy ginnaaw gannaaw di leen déglu lépp fuñ fépp fu ñu teg fa la ñuy tegu si lu ñu yoon bu ñu jaar loolu itam si yoon boobu la ñuy jaar waaw. Cheikh awma dara lu ma koy wax. pare nga pour bëriwaat ak moom ñu ko doon tëgg bu wéree. waaw man su ma parewul woon pour bëreeg moom du ma jëloon avance am nii nii pour bëreeg moom loolu moom moo ngi des si gaa yi saa yu ñu ñëwaay waxaateeg ñoom itam pour mu nekkaat seex mm-hmm. dañuy bëriwaat ak moom bu dul seex itam dañuy seetewaat keneen ñu bëriwaat ak kooku. am na lum la ŋànkal da koo waxut rek waaye mer gi ma gis keroog mu wax ko am na lum la ŋànkaloon. non su ma ŋànkaloon dara konoon xam nga mu teeyoon lek moo gënoon parce que journée bi passé na ah dañ ko xabtal. waaw ah, mën naa ne ñun de am nañ ay aal moom am nañ ay aal bu wër sax boo xam ne leer nañu naññ ne xam nga kenn ëppale wuñu aal mais nag fu ñu war a aaloo la ñuy aaloo duñ def loo xam ne mukk luñ warul def la ak ko warul defee lépp lu ñuy def rek dañuy bàyyi ba mu jot ba fi ñu ko war a defee ñu defee ko fa en tout cas ñun suñ duggoon ci biir géew moom dina xam ñun ban àll lañ andi woon keroog waaw mais comme bëre wuñu ñun suñu waaw loolu daal la ko yàlla dogalee sant yàlla. Mm-hmm. bi li ko daal bi mu ko dalee ba léegi woo nga ko téléphone wala dem nga seeti ko. non non aw ma numéro nag wax dëgg yàlla aw ma numéro pour woo ko téléphone wala pour dem fa xamaguma këram parce que yàggagul noonu. mais daal ñoo ngi koy masawu di ko wax yàlla na ko yàlla may tan xam nga ba mu dellusiwaat si làmb ji. Mhm. seetaan nga ko wasaare làmb gis nga blessure yi ni mu mel ci moom. waaw seetaan naa ko gis naa ñu taf rek ay taf ay affaire yooyu noonu mais jotuma xam kii bi nu mu demee carrément xaw ma itam fu mu toll. mais daal ñun wër daal lañ koy ñaanal parce que moom lañ ko doon ñaanal itam wër lañ ko doon ñaanal pour mu mën a ñëw ñu bëree parce que loolu lañ bëggoon dañoo bëggoon bëree lañ bëggoon waaw. jóge nga ci làmb Super Jamono foo jëm. waaw comme li ma la wax rek ñoo ngi suñuy ginnaaw garant di déglu tamit parce que instant bii nii moom làmb moo baaxoo noonu quoi en tout cas ñun ñoo ngi pare li ñu war a pare combat bi bu ñëwee stade tamit ku ñu xool xam nga xam na ne ñi te duñ woon di nelaw rek na nañ bu baax a baax a baax a baax man combat bi depuis mu taxaw noppali ko wuñ parce que bu ma génnee sama combat wala ba léegi maa ngi ne combat bi taxaw tamit ñu tegaat ko si nii nii itam duñ bàyyi dañ ko siy tegaat incha allah di ñaan yàlla rek mu gaaw mayaat ñu combat beneen ñu ñëw pour mën a wanawaat suñu bopp waaw loolu lañ bëgg. xam nga site bi seet si tey waaw wasaare ñoo leen di suivre bu baax di leen ñaanal tamit xam nga ngeen dem ba bokk si télé yi nga xam ne ñoo fi nekk ngeen passé fii nii yëpp parce que dafa mel ni am na si bu nekk États-Unis maa ngi gis moo jël gars foofu noonu xam nga mooy champion yi nekk foofu yëpp di leen génne tamit ñoo ngi koy suivre daal am na solo lool macha allah. Mhm. Euh, ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw di santaat ñëpp rek. maa ngi sant daan ñëpp du nuyu nag bu baax a baax waa parcelle mooy fii ñu nekk waa unité 22 yëpp aw ma seen fay maa leen sant bu baax a baax di leen gërëm rawatina waa Grand Médine yëpp Grand Médine yëpp maa leen di sant am na si ñoo xam ne temps bi mayu ma ko woon ma jot ko wax mooy ñi nga xam ne dañ dëkkoon fii ak ñun Grand Médine te yàlla dogal instant bi nii si ay affaire projet bi rek ñu jëlee leen fi ñoom toxal leen ñu nekk feneen te suñu dëkkandoo lañ woon ñu dëkk ak ñoom nii. xam nga ñu nekk ñoo xam ne parce que daal suñu lépp si foofu la woon ñoom suñu lépp foofu la woon tamit moo tax terrain BRT boobu noon daf ñu laal bu baax a baax a baax a baax waaw parce que lim fi jëlee daal xam nga nekk na loo xam ne donte ne ñoo leen di gis ba léegi nag mais sore yoobu rek moom moo ñu xaw a jaaxal sore yoobit mais ñoo leen di nuyu ñoom ñëpp ku si nekk fa mu nekk ñoo ngi koy nuyu di ko sant am na si benn maire boo xam ne rek maa ngi koy nuyu waala muy sama mama bu baax maire la wantin fii la nekkoon ak ku si mel ni sama waa kër foofu moom sama kër la muy kër ñëw Ablaye Diaw di suñu yaay Tanxade Diaw moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko wax ñoo gis ñaan yi ak lépp waa kër gi foofu ñoom Babacar ñëpp ñoo ngi leen di nuyu may waat bu baax a baax suñu waa kër nag sama tonton Abu Ngom maa ngi koy bu baax di ko sant di sant itam Youssoufa Niang Youssoufa Niang ñoo ngi koy sant jàpp na si combat bu baax Maodo Diouf xam nga grand Maxet Maxet Padoua moom tamit ñoo sant grand Moulay ñoo ngi bëggee gaa yëpp di siyaar ñëpp bu baax a baax a baax borom dëru yi nga xam ne itam ñoom la ñuy àndal ñoo leen di sant bu baax waa parking boobu muy parkinu Esat di parkinu ñoom Tempo muy ñoom Baye Paul sama gars yi ñoom Laay xam nga ñëpp rek ku lim da ngay juum. ma fi yaaba maa ngi sant nag bu baax a baax a baax kii moom bëgg naa nga kii ko parce que itam sama benn tonton la boo xam ne waa Saalum la te nit ku baax la muy aas ndaw ndukumaan suñu tonton aas maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla tamit lépp loo xam ne mën na xëran bu déwénee mu mën lu ko ëpp ñoo ngi koy sant di ko tàllalaat suñuy loxo bu baax a baax a baax di sàkku si moom pour mu jàppale ñu parce que am nañ yaakaar si moom bu wér a a wér a wér aas ndaw ndukumaan suñu père Ibrahima Ndiaye moom tamit dañ koy sant bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér doomam Zal Ndiaye moom tamit lu ñu xewle day ñëw taxaw ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax di nuyu waa écrit bi yëpp di nuyuwaat waa parcelle 1 ba 26 sama waa dëkk waa Saalum waa Jaxaw Saalum maa ngi leen di bëggee commune Burel yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Jaxaw Saalum sama xarit Babacar Sarr da doon takk soxna fan yee maa ngi koy ñaanal xam nga sëy bu barkeel moom ak soxna ñoo leen di bëggee bu baax Abdou Sarr sama gaan moom tamit jógee ba foofu ñëw ay ñoom Modou Ndiaye ñoom Aliou Diang gars yi daal kenn amul seen fay ñoom ñëpp kontaan bu baax a baax sant naa leen gërëm naa leen di leen wax rek ñu waajalaat gën a daasaat affaire yi rek fi ñu ko tegoon foofu la beneen combat ñëw incha allahu rabbi ñu def leneen lu bees. Mori Cheikh Super Jamono nee na mhm. daa bëgg bu wéree mu woo la ngeen ànd dem géej. ñu def ko en direct wasaare làmb ngeen teg xaalis xaalis ngeen bëre parce que nee na xiif gi mu la xiif balaa promoteur di ko tëgg ba ngeen di bëree day yàgg te moom. dalaa xiif ngeen pour ñëw filmer loolu yéen. yow yow laay laaj kay ba xam pare. <laughs> man pare naa pour lépp mais Cheikh dafa baax rek moo tax muy wax ay ñu teg xaalis xaalis ñu bëre. ah moom démb seetaan su bëggoon loolu. su bëggoon ñu teg xaalis xaalis bëre sëñ bi moom kay te mu ñëwoon woon stade rek mu bañ a nekk. Ah, bundu këram boo xamante ne dal na ko tayu ko te xam naa ni bu ko sañoon du ko du ko dal te loolu maanaam waaw kay léegi nag fi mu toll nii fi ñu toll mooy ba xam yow pare nga pour bëreeg moom xaalis xaalis ñu. non non bëreewu ma si ay koñ bëreewu ma si ay laqatu su may dañ may géewal si stade bi ñëpp toog di seetaan ñu tëj barrière yi amul daw amul dara ñu bëre ñu xeex. mais du ñu xe bëre si ay koñ yoo xam ne danga nga fay xeex ñu ñëw di la atte wala ñu lay yóbbu police géew bu fële amul loolu amul yóbbu police amul atte dañ leen di géewal arbitre tooxew na la ñu tëj barrière yi foofu kay moo dàq bëréewuma ay xaalis xaalis ak ay ay bëre si koñ defuma loolu waaw jaajëf jaajëf gannaaw kontaan nañ bu baax a baax a baax waaw jaa ngeen jëf waa wasaare làmb dégg ngeen li nga xamante ni moom la Mori Cargo wax ba ëllëg incha allah ak beneen daanaan ci wasaare làmb jaa ngeen jëf